dal leen ak jàmm soxna siñ tiré woon ba réel ci samedi gi ñu génn ci ab manifestation bu amoon ci Cap Skirring mujjee na ñàkk bakkanam xibaar boobee ko ko xamle di ab source anonyme bu jege woon loolu dossier boobee soxna si nag euh, mu ngi ñàkk bakkanam ginnaaw bi mu perte deret yu bëri ca foofe ca hôpital ginnaaw ab euh, évacuation ci fàttali nag ni ki samedi gi ñu génn askan ba yeewoo foofe ca Cap Skirring ñoo wàccoon ci tali ba fase woon a jàmmaarloo ak way takk der yi ñoom nag la leen métti woon ba ñu wàcc ci jotaali ba moo di ñàkk ndox bu sell bu nga xamante ni moom la ñuy naan ak usine bu nga xamante ni moo di la Casamance bi nga xamante ni day commercialiser ndox bi nga xamante ni moom mooy génn ca seeni teen daanaka nag bu ñu sukkandikoo ca askan wala boobu la usine jumtukaay yu am doole yu muy utiliser tax na ba bu aspiré ndoxu teen yee ñoom askan ba dootuñu am ndox bu sell boo xamante ni dañ koy naan maanaam ndox bi génn ca seeni teen ya day nax loolu ba kenn du ko mën a jëfandikoo ci noonee nag ci lañ daal di wàccoon ca taliba fas fas yéene woon a jàmmaarloo ak way takk der ya nag ca la musiba ji daal di am ndaxkat kat way takk der ya ñoom it dañoo mujjoon di yëkkati ay bal réel di ko tiire ca askan ba ginnaaw bi nga xamante ni askan ba mujjee woon nañ leen sonal lool ba ñu mujjoon sax wuti ab renfort dañ leen di bàyyi rek ngeen seetaanaat image yi nga xamante ni tukkee woon na ca manifestation ba tax sax ñu dal di tiire femme bi nga xamante ni moo mujje ñàkk bakkanam